làqatu bañ jaar fa ñu rey la ñoom ñëpp ba mu des Muhammad ibnu Maslama ibnu Muhammad képp moo ci rëcc ca saase yonent bi yebalaat Abi Ubayda ibnu Jarrah mu demaat seen xassa waaye ba mu demee ba àgg dañoo daw làqatu ci biir dëj ba kenn jàppale mu yebal Zayd ibnu Haarisa mu dem fa ñuy wax xumum mu yebalaat ko ba tey fa ñuy wax al-Ays yebalaat na Zayd ba tey ci waajil Quraa mu. waaye waa waadil xuraa dañoo dal ci seen kaw rey leen ñoom ñett ba mu des ñetti euh, ñett ñetti nit ñooñee Zayd ca la bokk waaye ñett ñetti nit ca mucc ginnaaw loolu xareb al muraysiya ñu di ko tuddee xaswatu banil mustaliq ba tey xare boobu ñu ngi doon ci atum juróom ci gàddaay la ko sabab mooy xaaris ibnu abi bayraar doon sang banil mustaliq doon wër ci waa këram ak ñi man dara ci yi euh, bëgg ñu jàppale ko mu xeexal yonent bi yonent bi mu déggee loolu daal di yebal ku ñuy wax Burayda ibnul Xasib ngir mu wérlu xibaar ba xam wér naan rek waaye ginnaaw bu mu leerloo ba xam ne lu wér la la daal di woo gaaw ànd ak mbooloo jug ngir xare daj ci seen kaw bala ñuy jóg am na mbooloo munaafeq yu si àndoon yoo xam ne xare ya ko jiit sax doon dem waaye xare bu yàlla dogal nañu ñu àndaale si fekk Xaaris ibnu Birar yebaloon na nit ngir di ko gës suloo xibaari jullit yi fu ñu toll ñoom waaye jullit yi jàpp ko daal di koy rey bi ñu ko reyee nag loolu indil Xaaris ak ci tàng ju ñun mu jotoon dajale ci arab yi lolu tital tiital leen ba ñu di tassaro baye ko fa yent bi ag ci fañu wax al almuraysiya ñu dal di wajal xéx bi jot nañu sànnente ay fat ab diir yonent bi da joxe ndigalul ni na dal ci seen ko benn ñu jóg dalandoo ci seen ko benn yoon noonu lañ leen dàq gañe leen jàpp ñenn ñi rey ñenn benn jullit lañ fa rey ci xare boobu ci la xadisul ifk xadisul ifk yaakaar naa soxna Aïcha radiyallahu anha moo moo moo moo ko daan nettali di wax ni yonente bi di daan def saa bu masaan di dem ci ab xare ba muy tegoo bant ñun jigéen yàlla dogal bant bi dal ci sama kaw ma war a ànd ak moom dem ci xare boobu waaye nee na bi ba xare di jeex bi ñu wëlbatikoo ba wàcc ci benn ci benn wàccuwaay ci wàccuwaay yi ñu wàcc bala ñoo àgg matin nee sama caq ma ci dem ma di ko wëri li ma koy wër far guddee sa li koy wër loolu moom moo tardeel ba ñoom ñu waaj ba jekk ba jël berkende bi ma daan nekk teg ko ci kaw gileem gi ba dàq dem nee na booba mbooloo koy jëlandoo di ko teg ci kaw gileem suñu maandu te mayu leen ñuy ubbi ba xam maa ngi ci wala déet te it booba gone daal bii suma diisaay bopp su ma ci nekk ak su ma ci nekkul danañ ci mën a xam dara waaye loolu lañ def yàlla dogal ba ñu demee ba àgg yonte bi ñu ko gisut soxna Aysa it toog na ngir jàpp ni rek du ñàkk nit dana ko danañ ko bàyyi xel jël siwaat ko daal ba ñu fa lool ba jooy fa ba sonn bi benn saxaaba bu baax waaye nag moom itam dafa mel daa bari woon ay nelaw daan des gannaaw daf ko seen ñëw daan ne kii de inna lillahi wa inna ilayhi rajiun kii de ndeyu jullit jël ummul muminin kon Aysa ñun daal kaddu kaddu googu moo ma yee nee na bi ma jógee it dafa dal di yeesal gileemam ma war ci waxut ak man waxuma ak moom bañ dem ba dara ci waaye bañ àggee naa fekk yi occasion ni ci loolu wax ci wax ju bare bare daal di koy tuumaal ñenn ñi ne daal loo ci mën a dégg kenn mucc ci ci sama rob loolu def euh, tiitaange xool ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ba xam xamul ba xam ay waa këram dañoo def lu ñaaw soxna si nee na li ñuy wax yëguma ci dara gis naan daal yonente bi ba mu masaan tawat ni mu may kopp-koppale ak yërmande yi mu amoon ci man daa gis naa ne wàññi wàññi ko na tawat sa bu ñëwee day taxaw ci buntu bi rek mu kay fa téy ko naka ngeen daal di dem ba fan yooyu yooyu nee na ma ñaan ko ne ko dama bëggoon a dem ca ca suñ na mu jox ma ndigal nee na ma dem nekk fa ab diir waaye nee na li ñuy wax ci dëkk bi lépp lu taxaw ko ba ànd ak bàjjanam ñuy dem muy doxee xaajat na insaan booba ayat kiiraay li wàcc nee na am lu ko fàktal mu ne taa isa fulaak yàlla na doo tuskare muy ku ñuy wax mustax soxna si nee na ma ne ko ah, bàjjan li nga wax kooku bokkoon ci waa ba nga di ko ngañ nee na mu ne ma xanaa xamoo li mu lay ma ko lu mu nekk li ma ko nee na ma ne ko nit ñaa ngi may waxal